tey ñi ngi woon fii ci mairie bu Ndioumane euh, di changé li nga xam ne mooy euh, wut résidence pour sancé suñu bureau de vote euh, loolu nag moo doon suñuy tànk tey di wax na rek suñuy yitte ak suñu mébét ak suñu pas-pas mooy fas yéene taxawal suñu candidature ci mairie Ndioumane ci mairie yi di ñëw élection élect yi di ñëw ndax lan euh, ndax euh, dafa am taxawaay bu ñu war rawatina ci suñ gox ndax euh, bu nee sëñ Modou Bara Dolly Mbacké ñépp xam na ne wutututu aw bu nee sëñ Modou Bara Dolly ñépp xam na ne du ay moyen maire ci la aj ay mbiram bu nee sëñ du Bara Dolly Mbacké ñépp xam na ne la maire war a soxla muy carnet adresse wala ay partenaire suñ borom dénk na ko ko kon dama gëm ne suñ ñëwee fii ci maire bi danoo nekk fi pendant ñaari at di fi dund nga xam ne fu ma mën di dem rek guddi guddi fii laay faransi waat ma jàpp ne nag gox bi loolu lépp bu ma ko suñ borom dénkee war naa ko liggéeyal war naa cee taxaw ba li fi war a am ci ay courant am fi li fi war a am ci ay yoon am fi li fi war a am ci ay piste am fi ak lépp loo xam ne jàpp nañ ca pour war a dimbali ndaw ñi ak jigéen ñi kon loolu moom ma dugal tey ma wàcc ci mairie bi fa yéenee fee taxaw liggéeyal leen ba loolu lépp ñu mën ko am. bu nee sëñ bari Bara Dolly responsable politique APR au di du Touba département bu Mbacké tey bu doon waññi ñeent yi ko jiite wala juróom ci juróom yooyu laa bokk ci département bi. parce que élection présidentielle yii woote ñun ñi ko taxawoon xam nañ ko ñun ñi ko yore woon liggéey bi xam nañ ko kon jàpp naa ni amuma beneen bañeer bu may réclamer bu dul bañeeru APR avant tout parce que li tax mooy responsable politique APR lan mooy wooyee ci dëkk bi bokk naa ci département Mbacké ci juróomi nit yu ko jiite kon loolu moom euh, lu ci kanam la sama parti moo koy décidé waaye daal li wér ci wóor mooy li ñu amal solo mooy localité bi li ñu amal solo tamati mooy liggéey localité bi li ñu amal solo mooy taxaw askan wi fi ne loolu mooy suñu priorité numéro un. xëccoo moom ala kulli ali mënut ñàkk ci politique ay gox it ñàkk ñu koy xëccoo faw xëccoo maanaam ndax it nit moom bu fekkee def na ñaari mandat ah bu sañoon day continuer keneen it ku ñëw war a liggéey am na droit liggéey kon xëccoo politique lépp lu mën a am rek moo xam ci parti la jëm ci politique xëccoo mënu caa ñàkk ndax ki yore woon danaa doylu ma keneen day ñëw it bëgg a changé bëgg a yoraat kon loolu mu mënu ci nekk loolu moom euh, faaw ñu koy xaar ci fépp. li ma gëm ci xam ko kenn ku ne xam na lan mooy capacité kenn ku ne xam na lan la attan kenn ku ne xam na lan mooy pas-pasam li am solo loolu moom lu ne ci kanam la rawati bët du ci man a tontoogun mais li am solo mooy li ma gën a ñor mooy nan lañ war a def ba li ma indi pour liggéey gox bi. li nga xam ne taxaw naa ko pour liggéey ko gox bi ma ànd koog waa ñi fi nekk liggéey ko loolu mooy li ma njëkk a ñor mooy priorité numéro un. nan gëm na daal fii bu mu fi ñëwee ne dama fiy changé pour wote fi war a taxaw ne damay def sama candidat am na lu ma la ma ñor nag mu wax naa ko wutuma aw tur sëñ Modou Bara Dolly seen àdduna bépp xam kon wututuma aw tur jàpp naa ne tey boo jëloon sama tur jël ñu maan taxawal yaakaar naa ne àdduna bépp xam nañ ka mooy sëñ Modou Bara Dolly kon jàpp naa ne fii ci dëkk bi kenn ku ne xam na relation yan la sëñ Modou Bara Dolly am kenn ku ne xam na ne lii di fi nekk muy PDC wala FERA wala yeneen yan convention la ay maire war a def ak ñoo ñu sukkandiku ci ban liggéey ay yoon yokk courant yi dimbali ndaw ñi dimbali mag ñi loolu sëñ Modou Bara Dolly umpaliwu ko parce que xam na ñi ko yore ca waxtu wu mu leen bëgg a gisee ak heure amul mi ñi ngi jëm ci conseil département bi heure bu ñu ci war a prononcé ci kanam nga xam ne moom moo xam moo moo ma ñor mooy li ma dox tey di ko wax di ko jëf ba pare. kon man jàpp naa ne li ma ëppal solo mooy waxtu bu nekk fexe ba gox bi ñëpp nekk benn ñëpp liggéey parce que li am solo faaw ñu liggéey gox bi mënut a ñàkk. ko seetaan liggéeyuñu ci liñ ci war a liggéey mun a ñàkk ndax man mi nga xam ne xam naa ne même bu dooma bu ma dul maire it fenn fu ne maa ngi fay daw di lijjanti ay gox bi am dara asamaag boo xamee ne war ngaa taxam war a ma nekk maire kon man li may wooti doomi gox bi ñun ñëpp ñu ànd nekk benn xool na la ñuy def pour yóbbu turu ñu maan ak maire ñu ak localité ñu maan foo xam ne mosu faa egg loolu mooy li ñu yor